dañ la bëggoon laaj tey match bi nan nga ko dundee. waaw match bi bon dund nañ ko at pression mais dañ naan alhamdulilah quoi tout est bien qui finit bien lu ñu bëggoon am nañ ko mooy Sénégal euh, qualifié huitième de finale alhamdulilah Sénégal qualifié na kon loolu la ñu wax loolu mooy lu gën a importance daal. bu ndaw la léegi nag bu fekkee ma yoral bàjjanam ay xaram xar yi bu ma bu xëyee day andi ñamu xar yi ci siwa bu ma ko gisee si mbedd bi dama koy dóor. xamal tax daan babi ma bëggoon babi muy jàng ji Sacré-Cœur di def pour dem football ma ne eh, ñëw baa jëlee man kay yow xamal ma la bëgg a xamal boo ko teyaa sa doom yi kenn xamu leen waaye moom mi ngi si babi bi mi ngi si babi bi rek tubaakàlla macha allah baa jëlee mu yoru lool jullite lool du tardé waxtu ni mu yore rakkam si kër gi ñii noonu la ko yore du tardé waaw loolu ku ci sant day naa yàlla am doomi Europe mu bëgg a diine di jàpp di julli ku ko amal ngaa sant yàlla oui merci te ilimaan noonu la. non une fierté voilà une grande fierté c'est un frère donc euh, loo xam ne daf ko yàgg a donc euh, tey moom dafa siggil famille bi siggil Sénégal yëpp et on peut dire c'est une surprise aussi pas une surprise parce que wóolu nañ ay xam nañ compétence am te ci kanam ci kaw ci kanam rek la jëm voilà. kontaan kontaan si équipe bi yëpp kontaan si joueurs yi kontaan si coach bi waaw tey moom sentiment de fierté la ñu am sentiment de fierté aussi pour Ilimane Ndiaye parce que dañ ko gis fii nii depuis tout petit rêve am la en fait rêve la xam nga donc pour moom la pour Sénégal la de manière général mais de manière particulière pour moom la. donc fierté la daal loolu laa amoon lu bay sant waaw ma kontaan ngeen may bàyyi ba dem féete ji. waaw ah, match bi moom neex na trop waaye neex na trop di moom yàlla na dem ba andi fi coupe du monde li liñ bëgg si si li leen di def liñ si bëgg yàlla na leen ko si yàlla defaral na teg na teg kii nii. Ilimane Ndiaye dafa jël combat bi teg ko si ay loxo yu wóor dafa jël combat bi teg si bakkanam bi. niñ bëgg nag si seen football bi yal na leen ko si yàlla defal yal nañu yàlla jàppale bañ dem ba jël coupe du monde lool rek la ñuy ñaan yal nañu ko yàlla defal. waa euh, xol bu sedd rek ak mbégte daal te franchement tax tax ma gën a kontaan mooy suñu doom suñu xarit suñu soppe Ilimane moo tax ñu gën a kontaan tey. partant bi mu def tey suñu xol dafa sedd te xale la lii rek lañ doon xaar te sénégalais liñ doon xaar ci moom yaakaar naa ne ñu ngi koy gis te ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu sunu borom suturaal daal. ba nga gisee Elimane Ndiaye mu bokk ci onze de départ yi nan nga ko dundee. kontaan mbégte bu rëy yal na yàlla jàpp ren mu ànd ak sagoom waaw. tey nan nga gisee classement Aline Aline Cissé ba Elimane Ndiaye gis nañ ne dafa départandoo ak gars yi. waaw c'est bi parce que bi mooy premier match am mu mu kii départ te bi mu duggee tamit li Sénégal doon xaar si moom def na ko kon foo doon dañu naan alhamdulilah parce que pression métti woon na. dañ doon ragal mu dugg mu passé à côté mais alhamdulilah bu mu duggee assumé na ko quoi kon dañ dañ ciy sant yàlla bu baax te li mooy li mu la waxoon sànq rek mooy li gën a importance mooy qualification bi am nañ ko kon alhamdulilah quoi. man nee woon naa ne dañ koy dugal sa sooba léegi sama kër ngi nii maa ngi jiirlu sama bidon bi laa yor di supporter sooba ba léegi di door muy daanu may supporter xale yi topp ma di yuuxoo boo gisee jëngu ma woon fii nag nit ñi dañu bari woon ñu toog mais dañuy bàyyi ba mu jeex ñu ñëw félicité bàjjenam dama doon xalangu xam nga xalangu dañ doon xalangu. une émotion voilà on a senti vraiment une émotion donc euh, comme li ma wax rek xamoon nañ ni ci kaw li ci kanam rek la jëm. donc waaw sas comme ñëpp Parce que si toutefois on a confiance en toi, donc ce que tu peux, tu peux faire, c'est juste euh, montrer tes capacités, voilà, pour ne pas décevoir le monde. Voilà, on, on, on s'y attendait et yàlla dimbali nañu ci bu baax a baax. waaw dama damay fàtte bu mu nekk xale rek di ko gëmoon di dem di entraîner matin midi soir xam nga loolu ma à chaque fois loolu mooy revenir si man xale bu doon dem di entraîner gëmoon ko xam nga ñafe ñafe ñafe ba aujourd'hui donc c'était mais gëm gëmoon rek loolu rêve am la quoi. méritam la donc aujourd'hui on est content franchement surtout si équipe nationale bi fierté la fierté pour Afrique fierté voilà pour toute la famille. waaw normal parce que tey jii nii marché bi moo laajoon loolu moo laajoon loolu marché bu nekk ak lu mu laaj mais dañuy wax ni rek euh, li ci kanam rawul bët daal nan ñu may temps rek incha allah rabbi dina gis ndam daal. ah neex na neex nañu moom kontaan nañ ci torop torop sax ah yàlla nañu yàlla na dem nag ba dem ba nekk fi ay ñoom Bokandeer ay ñoom ay ñoom Zil Zil ak ñoom ay ñoom Alioune Cissé yooyu noonu yëpp yàlla na leen ko yàlla defara waaw bon kontaan rek kontaan rek ah, mais ñun double contentement la ñu am parce que contentement la ñu parce que ñun lu gën a importance mooy mooy victoire bi. qualification am nañ ko kon dañ loolu rek su amoon loolu rek alhamdulilah mais soo si tegee tamit am sa membre famille buy dem jouer noonu lay demee ko tey lan nga koy dénk wala lan ngay dénk ñi nga bi yëpp. amul ragal dem ba jeex on est gaynde proud to be Senegalese people. rendement de fierté aussi donc di remercier population Cambérène bi yëpp parce que ñoom ñoo jël lépp ah. kenn woowu leen kenn kii mais ñoom ñoo jël seen engagement bopp ñëw investir def ay banderole def tout ñëw taxawu ko wuyu ko donc loolu rek déjà kenn mënu leen fay te kenn fay leen dara kenn woowu leen kenn deful appel kenn deful dara mais ñoom ñoo jugal seen bopp bàyyi seen lépp. ñëw répondre soutenir équipe bi soutenir Ilimane et loolu sentiment de fierté la ça fait vraiment chaud au cœur. gis nañ ni deuxième mi bi nag euh, bañ doon def euh, remplacement bi dañ ko génnee dañoo génnee Elimane Ndiaye léegi yéen bañ ko génnee wee lan moo nekkoon seen réaction. non loolu loolu est-ce ñu ko génne seetlu ma ko boobu noonu match bi serré na li doon xoolee mooy Sénégal muy def pour qualifier coach bi gis na ni mu génn ko moo gënoon si moom. génn n ko dugg loolu la quoi. man loolu laa gëm ay ay ay détails la importance mooy lan Sénégal qualifié Sénégal qualifié na Ilimane joué Pathé Cissé joué Demba Bamba Ba xam kii Ba joué Bamba Dieng joué loolu yëpp amul importance importance mooy lan Sénégal na ñun ñëpp jàpp si équipe nationale Sénégal gagné ku joué amul solo 26 ku si dugal baax na loolu moo si am solo qualification moo am solo daal. waaw du ñu mer parce que sport la. football moo demee noonu. course bi moom soo am lay def rek mais bu sunu sañ-sañ mu bàyyi ko si biir bu boobaa day gën gis li ci kanam. parce que moom liy problème li suñu problème mooy que ni kiy jël bal bi di ko yóbbu ci kanam te loolu la ñu manqué woon te xam naa ne xamul woon lool ci Iliman donc mi ngi koy gis ñi ngi ñaan yàlla suñu borom suturaal ko comme xale la ñu may ko temps de jeu rek incha allahu rabbi suñu borom defal ko ndam daal. yaakaar ngeen ni Sénégal na jël ko. waaw yaa ñaan ñu koy saa yuñ jullee moom la ñaan saa yuñ jullee moom la ñuy ñaan mu jël coupe di monde. waaw mu jël du monde bi dëgg la. ah pourquoi nañ def lu ñuy def rek te jël yëpp tekk ci loxo suñu borom lu mën a nekk la. kon soo bëggee sori euh, pour ko ku bëgg sori il faut nga dañ tey ay équipe yu mag n'est-ce pas kon tey su ñu amee Angleterre dara ay joueurs la ñu ay joueurs la mën nañ leen gagné qualifié ah loolu loolu du ci dara ma ragaluma Angleterre na ko na ko joueurs gëm rek incha ah? Sénégal nañ jël match par match rek incha allah yàlla jël coupe bi yàlla na jël coupe bi. gëm ko gëm naa ko rek. jàll ko lii jik ndax moo naa ñëw Cambérène yaroo Cambérène tubarakàlla macha allah ñu interroger ko mu leen xamul fu ma dëkk maa nga dëkk ca ñu xonq waa xam ne ni fii kenn ka ca njagambey fii la wàccoon fii la dekkalaay ni Cambérène laa dëkk waaw loolu bëgg bëggal nañ ñu loolu bëgg xolu nit ñi ñëpp ci dikk amoo. kon yow bi mu dugalee bii bi dama xalangu dégg loolu dama doon xalangu ñu ne ma yaay ji dugal na fi ñu dégg euh, ka dëkk Casamance mu tudd Sadio Mané yàlla na ko raw ñu ngi koy ñaan si kàttanu yàlla ak bay lay war ma maam Seydi borom Cambérène fi ñu dégg Sadio Mané yàlla nga koy dégg fu ko raw lan nga koy wax lan nga koy dénk ñu koy dénk mu góorgóorlu gën a gëm boppam football gëm sa bopp rek la waaw sama sët yu ndaw yi ba ma ne ku gagné ñun ma rimaan fu mu koy gagné mu mat ci ceene bi mu waxi dëgg kuy gagné si ceene bi ngay gagné yi wax si ceene bi fii lañ koy tant weeru yàlla jét bi bi bu yoon buy football écran géant la ñuy def ci mbedd mi bàjjenam bii bu ma ko waxee day dem ah, écran géant lañuy ñuy tant ci mbedd mi xale ñëw si poti di yuuxu te day